maanaam Sénégal jamono jii dañuy bay bay leen loo xamante si nii dox bu katt tuunu ndeyam bii mi ngi nekk ci TikTok bi man du ma leen seetaan man dama jékki-jékki ñem ji mi ngi nii xoolal def ay faaram def ay lentam yu baax kat ci ndeyi faar bi ci kaw rosa ndeyi ay tuyam ah teg ndeyi garafaasam maquillage dataam toog tayor koy di def affaire yu góor jigéen ma gis gars yi di ko invité tele yu kat seen cottu ndey yi di invité kii pour mu wax télé yéen kii war ngeen ko mën a jox micro mu toog naan day day day am lu muy expliqué kii góor jigéen bu teppi da jëw ndayam bi xanaa sax ngeen jàppale seen talent yi man soxlawuma ko ma jàppale man soxlawuma tele man rek tele laa man dama am sama tele bopp yor sama yifu bopp yaa ngi dégg lu ma dugal day jàll fu ma ñëwee nit ñi dañuy ñëw soxlawuma ku ma defal promotion mais genre yi pour nga leen di defal ci télé yi ñoom nga jël ay jeune talent jàngkatu alxuraan yi di wàccee kaamil nga jël leen teg leen ci télé bi ndax xale yaa ngi def lu neex ci kaamil bi di jàng alxuraan yu neex am na ay jeune rappeur yoo xam ne ni ay talenteuse lan nekk ci bopp bi ñoo ñu bëgg nañ ku leen invité ñu wane seen talent defu leen ko dof yu kat seen ndey yi góor jigéen yu tepp seen dajow ndey yi ngeen leen di dugal naan da ngeen leen di joxe ay micro naan ñoo xew kan moo xew ku kat ndeyam kii gis ngeen kii muy mel ne golo bu ngas xool ko xool ko bakkan bu kat tuunu ndeyam bi xoolal gémmiñ gi dakk ay piercingam maquillage lëfam toog mais da ngeen di font non Sénégal dañuy font barki yàlla xoolal kii ma wax ko muy génnee ay silibak kii danoo war a taal ndeyam genre yi dangay jël seen nday kat seen ndey ci bërigo ñebe yi waxuma la bërigo ancien ya da ngay dajji ndeyam ba mu kii kat ndeyam ci bërigo bi sol ci ndeyi ngooñ kat yi bërigo bi tëj ko dugal ko ci vol daqaar ndayam ca siin mais da ngeen di font non Sénégal c'est hunte léegi léegi ku jóg ñu invité la ci télé bi dof bu génn ay dof ay góor jigéen rek ñaata Sénégal ñoo ñoo nekk ay jeune talent nekk Sénégal nekk ci ob bi di def diril bu garaaw lan moo tax invité ñëwoon ñu wane seen talent ah booy jàng alxuraan di wàccee alxuraan kaamil barke alxuraan ay boo yu mën a jàng alxuraan maa ngi leen di gis pourquoi ñu leen ci télé bi jox leen mikoro wax leen kañ ngeen dugg ci daara ji kañ ngeen def lii dof yu kat seen ndey yi leen invité góor jigéen yi kii nga xam ne yàlla da koo alal yàlla nee na baal wax leen benn affaire de góor guy nuru nuru lu jigéen jigéen guy nuru nuru lu góor ñaar ñii du ñu ak ñu du àjjana ñaar ñii du dugg àjjana jigéen guy nuru nuru lu góor góor guy nuru nuru lu jigéen ñaar ñii. àjjana duñ ko jege duñ ko laal waxuma laak nag kuy maquillage di ci teg gerefaas waxuma kuy tatouage data bi yor kooy waxuma laak nag wuyu ma waxuma laak ku yor kooy jël paaka kat sa ndeyi koy tapet teg ko à côté monte lëf teg si di juutu ah di puusi day ñu lay puusal say day kookoo gën a bon yàlla jox la koy nga ne ko tap teg à côté monte lëf toog makiyaasu takk say lant dóor sa ruusa ponce sa lëf ah dëllal sa karaw boole ko nag di aj sa silib yéen a doxaan seen ndey billaay senegal mooy dëkk bu katt ndeyam mais sa waay gis ngeen kii mais da ngeen di font nan lay Sénégal di nekkee nay jógee ci difficulté nan nan lay Sénégal di jóge ci jafe-jafe nan non xaaral kii mat dindi lëfal ndayam balaa sama écran katt ndayam mais c'est honte non barki al man man daal man daal non man daal seekunta daal barki yàlla non non non non barki man daal man daal li ma war a wax ci réew mi dafa ma metti dafa bëri suba nag wala gannaaw suba dinaa commencé waat kaa yi fan yi dama doon noppalu parce que dama jóge voyage Paris dama jóge Paris sonn ñëw di noppal def ay fan suba wala gannaaw suba dinaa déclassé waa déclassé bu metti sax déclassé bu metti te ku ne ma aadama nii ma tepp sa jaw ndey ku ne ma aadama jigéen dañ koy suturaal wala kii nangam nangam mat dugal téléphone bii sa jaw ndey léegi mu doon fixe noppi rek sama wax du bëri léegi maa doon baale man sax damaa baaleetul comme tey jii di la woo appel ngay jooy boo doon jooy ay dëtt di kat sanday di di di di jooy deret wala ngay day sax ay bulet di génn di nga ñëw ci live bi maa daan dawal yërmande rek maa daan dawal yërmande ma naan aanoo ah garaawul jigéen la ay damay xaroog sama yaay léegi loolu moo amatul jeex na ku ci xaru nga kat sa ndey ñu suuli la comme que Sénégal dafa am jafe-jafe ku xaru naan ay doom ñu daqaar sa ndey ci bàmmeel yi ah bàmmeel yi feesul ñu katt fa sa ndey rek benn yoon ku ci xaru sama yu newu ci comme que da ngeen a bon rek maay téegal seen ndey bu baax faaw ma commencé waat di daqaar seen ndey ndax yenn situation yi moom day bëgg a garaaw day bëgg a si il faut ma commencé waat di jël ay xobu mango ay xobu daqaar xobu siddéem dëbb ko ah boole ko neb neb ju kër Momar Sarr ji roof ko seen lëfal ndey non non faaw ma teppi seen tuun ndey masla moo jeex pare naa ci pas de masla pas de liberté contacter directement dëgg seen ndey amul sax wax baale amatul pare naa ci kala naxa katt ndeyam am na ñu fi saytaane nag ci live bi jigéen dañ koy suturaal jigéen nangam aadama jàpp ci looloo jeex loolu moo katt tuunu ndeyam jeex pare naa ci suba wala gannaaw suba ma démarré samay kaa dëgg seen ndey ñoom ñëpp amatul loolu non mais c'est good boobu ba tey maa ngi observé wu de gaal yi wàññeeku bari na mais dafa am lu may commencé gis yu ma neexul faaw ma xabtalu waat ah riplis seen da ndey c'est hunta xoolal téléphone bi sax ngay daanu cattu ndey li volume bi yéen koy dégg gaay téléphone bee daanu non léegi amatul baale pare naa ci paada de baale pas de négociation katt ndey rek direct depp seen dëjëw ndey